nañu waxante dëgg quoi parce que fii yàlla kese fi nekk d'abord man wala man dama comprendre mais damay laaj lan mooy détenu politique bu fekkee ni ni ma koy définiree du noonu nañ ko dindi léegi ma changer avis léegi détenu politique mooy koo xam ne dañ ko jàpp ci xalaatam xalaatam engagement engagement politique bi li muy wax arrangé wul nguur gi ñu jàpp ko ne ko ràpp ci kaso bi. Mhm. je parce que Sénégal dañuy déglu te dañuy waxante dëgg. Mhm. détenu mooy ki nga xam ne opinion am xalaatam gis-gisam ci réew mi gis-gisam ci doxalinu réew mi. ci doxalinu réew mi façon gouverner bi ni muy gisee réew mi avenir u réew mi. Mhm. loolu ñoom ñi nekk ci nguur gi ànduñu ci. ñu ne ko jël rap dugal ko ci kaso loolu mooy détenu politique fu mu nekk nag ci àdduna parce que c'est pour des raisons politiques moo tax ñu téye ko waaye léegi est-ce que man bu ma jëlee pono taal ko walla ma jël yëfu jàmbur taal ko ba incident am ñu jàpp ma dugal ma ci kaso est-ce que man détenu politique la je pose la question loolu benn la ma jël sama bindukaay jàpp kilifa wax ko sàngam walla ma taxaw ci télévision ne diw dëmm nga man homme politique laa sama opposant yi ñu jàkkaarloog man ma ne ko yow dëmm nga yow lii nga wax ko wax bu gën a ñaaw ci àdduna loo xam ne day entraver sa dignité en tant que être humain man mii di wax politique homme politique laa ba tey waaye maa ko wax sama euh, euh, euh, Euh, j'en sais rien moi. kii euh, ku jàkkaarloog man ci politique. man ñu convoqué ma man fiñ ma war a convoqué yoon parce que réew pour mu dox pour assurer et assumer une paix sociale dans un pays il faut que. loi muy jaar yoon loi nag mun na bon mais par expérience et au fur du temps ñu koy defar ndànk-ndànk ci li bon parce que comme ni nga ko waxee monsieur Diop loi ay nit a ko defar dañ koy continuer di ko defar ci ay dialogue ci ay waxtaan di ko defar waaye li fi nekk dañ koy def une loi boo bëggee dëkk dox d'abord dañ koy appliquer d'abord même bu fekkee ni baaxul mun na servir d'expérience ñi fi nekk defar ko mhm. wala ñii di ñëw parce que dañu bëgg changer mbir bu ñu ñëwee ñu defar ko par expérience waaye détenu politique du ki nga xam ne dafa ñëw yàq mbiru jàmbur wala autorité ne la defal lii nga ne man du def loolu leneen laay def ci loolu ñu jàppale ci nga nga ne yow ni politique nga non moi je ne suis pas d'accord très honnêtement muy man muy yow muy keneen loi ak autorité dañ ko war a respecter. pour yow li Bassirou Diomaye Faye wax est-ce que jaroon na ñu jël ko yóbbu ko tëj ko. Ah, euh, xam nga euh, lan la loi wax ci loolu. Mhm. ci jël euh, ay magistrats mhm. est-ce que ñoom am nañ dignité waaw wala déet c'est un monsieur que j'aime beaucoup je lui ai dit en face débat est-ce que nit am na droit même bu fekkoon ne benn groupuscule magistral nga taxaw wax leen lu la neex ci say kayit parce que tout simplement d'accord ak ñoom man mun naa opposé wu ma ne li ngeen di liggéeyee façon bi ngeen di def j'aurais comme l'impression de vous êtes toujours sous la tutelle de l'exécutif wax wi mais su ma commencé di wax ay clochardisation man dégg naa français man bu boobaa dama naan nit ñu ngay wax noonu yow parce que da nga leen mere parce que d'accord ak ñoom waaye est-ce que war ngeen leen wax loolu ñooñu bu fekkee ne ils se sentent offensés dans leur propre dignité ils ont deux choix dañuy croiser les bras ñu ne ok muñ ko wala bu fekkee ni xalaat nañu war nañu mën a dem ñu défendre pour pour retrouver seen dignité parce que dañ leen saaga dañ leen tooñ ñu dem def ko est-ce que kenn nit war na mën a ñëw nga ne ma man jiw man sàcc laa dégg wax rek mm-hmm. xëñ na sax sàcc la xëñ na sàcc la hmm. waaye boo ma nee sàcc la te man gëm naa ni sàcc la du ma sàcc donte sax sàcc na xaw ma waaye en tout cas man considéré ne du ma sàcc d'accord est-ce que man yow war naa jóg man ñëw taxaw jàkkaarloog monsieur Diouf mi mën ne sàcc la pour ne ko monsieur Diouf yow danga nga ma ne sàcc la da nga may wax tey ne fan laa sàcce d'accord léegi admettons daal l'hypothèse où man ma juum monsieur hmm. Diouf juum yoon ñëw ne monsieur Diouf mii di politique jàkkaarloog man jël nañ ko yóbbu ko ci kaso bi parce que dañ ko sanctionné kaso bu mu dul tëdd wala kaso xaalis wala tout ce que vous voulez est-ce que bu boobaa buñ boo tëddee ci kaso bi parce que da ma tooñ bu boobaa yow détenu politique lañ lay considéré dégg est-ce que yaa ngi may dégg bu baax li may wax dama bëgg loolu ñu wax ndax loolu bu boobaa détenu politique wala déet